Kër Mbay Fall benn waay moo far jam xaritam mu dee ndax tooyal morso bu mën a gense la ko xarit ba lankal waa ji daal fa ñëw na xaritam bi faa bëgg nga may ma ma quinze mooy li ñuy fónnoon rek nga xam ne fa ngay màndi na tatt di bajj-bajj doo xam foo ne xarit ba bañ koo may mu quinze rek mu rocci paaka fa bojj jam rey xarit ba ba mu faatu ñàkk bakkanam allah yëf yaa nga amee ca kër mbay faal kàmbu les su ko yéen kaay moo ñu ko xamal mu waa mame cay màndi moo bon soo màndee daal lu ne mën nga koo def soo paree réccu ko moo tax yàlla mi ñu aaye màndi walaay lim ñu mooy dëgg te bàyyi ko moo gën si ñun yow bëgg a tax nga rey sa xarit fi mu toll nii fañ lay jàpp tëj kaso waaw faxel boo demee kaso ga na nga fa gees dégg nga. loolu kay musiba lu moom. duna yàlla na leen yàlla yërëm. Amadou Ba dugg ci langal politique gi wax ci inondation yi inondation yooyu may mun a jéy maire bu Patte d'Oie moom dem na wàllu ji waa Touba am na benn xale sax bu fa mujj wàcc liggéey douane jàpp nañ ci faux médicament six cent vingt millions six cent vingt millions de faux médicaments musiba la kay. waaw Sénégal suñu xale yi jàmbaar la jàmbaar lañ kat ñu ngay qualifié di dem. الله أكبر waa ji di wékki turu Ameth Ndiaye moom bu dee dañ ko doon dimbali ngir penam gën a yomb takkal ko bracelet électronique bàyyi ko mu génn ñibbi ci ay njabootam duggaat na ci ay loxo yoon la ko wund nag moom moo di moom waa ji gannaaw sax ba mu jigee ci prison bu ndar ñëw ci mbuur moom nag la la mu def moom moo di daal jublu ci wàllum trafic ay migrants maanaam mbuut ab gaal gu nga xamante ni daal ay ndaw ki dem Espagne la daal di jël lépp nag ñaar fukki ndaw ak ñett daal lu nga xamante ni jëloon na seen ay passe nekk ci ñoom daal lu ci gën rek daal di ngay versé la nga xamante ni moom moo di ñeent fukki junni waaye itam sax gaal googee ne moom Ameth Ndiaye mu ngi ko jëndi lu ci juróom benn million yu teg téeméeri junni gannaaw nag ba nga xamante ni nag ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa division nationale de la lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées ñoom nag sax gannaaw ba nga xamante ni daal jot nañu xibaar yooyu lañ commencé topp ci tànku xale bu góor bi di wékki turu Ameth Ndiaye moom sax ñu ngi ñuy ni que daal ci ab euh, dàkkante gu méttee métti moom ak ña nga xamante ni daal ñoom ñu di alkaate yi ci ginnaaw loolee ko daal tegee loxo moom saa itam daal jamono bi teg nañ ko loxo ba jébbalaat ko yoon kon nag mbaadu dañuy tikki lii di bracelet électronique bi daal di koy delloo ca kaso ba mu tëdd penam ba mu jeex ñu soog ko atte lu ci mënti am daal moom mi nga xamante ni di amee njaay euh, daal di maanaam xelum demul ca la nga xamante ni moo xewoon ci mbuur fa ñi ñu weesu te nag lépp ñaari téeméer nit yu nga xamante ni daal ñoom ñoo yegoon ci gaal gi ñëpp ñoom nag gis nañ leen ñu daal di ñàkk seen bakkan moom nag loolee defu ci woon benn yoon xelam ndax nag bëggoon liggéenti xaalis moo taxoon mu daal taxawal ab gaal gu nga xamante ni daal seen ay boroom dañoo waroon dem foofee ne ci diwaanu Espagne lu ci am daal moom mii nii gannaaw ay fan yu nga xamante ni daal génnaat na ko nooy ci air bi daan nañ ko dugalaat ca kaso gannaaw jëf ji nga xamante ni def na ko. ay waay li tamit mbaa jàmm la jàmm de. ilaha illallah <laughs> ah, maa la wax li jëm wax garaaw na. ngañ dem ba Touré day ci yor yor yéene kaay waaw nee na yéen may leen ñoo bugaan mi lay te xam nga bugaan ngay dani lañ koy laaj ah? waaw xaalisam bi xam ne kon moom yore woon fan la ko jëlee daa yoratul ngañ dem ba turé ne ki bugaan daa yoreti dara day nax nit ñi ci nappaate la ne di xam ne ne entrepreneur la yoroon na fi ne xaalis boo xam ne kenn mënu koo justifier laa la wax aha ngañ dem ba turé ne maa leen wax li é jekki-jekki rek am alal ju bari waaye ci ay yu néew da ngeen dégg lu sulleeku loo xam ne maar di tali man ngañ dem ba turé li may laajte mooy lan mooy bilan politique bu sa bopp mën laay laaj ci juróom benni at yi cinq léegi nag li mu bëgg nag dugal ko ci kaso bi lée moom bugaan déet waay ngañ dee ma ne maa la wax ndax ay waxi ñaaw ak yooyee bu ko defee mu mën a victimiser xoolal bugaan doxal sa dox ngañ dee ma turé nee ko bugaan doxal sa dox kenn du la jàpp kenn dugal kaso yor yor yéene kaane Amadou Ba day man day xaw ma lu tax man mu nekk cible bi gis nga nag ca jamono joo xam kon politiciens yi ña ca waaw bés fi la jour nee na gën a garaaw lool Walf Fadjri ne gis nga élection député yi di ni lée xanaa xamoo ne Pastef waxuma la opposition bi waaye am nañu yeneen i adversaire ar wala Balzac ji adversaire la wàllum chômage bi adversaire la dund gu seer ni am na ci yenn ay boutique yoo xam ne day dañoo yokkaat seen i njëg ma ne la appliqué wu njëg yi nga xam ne la ñu homologué dëgg la Mountakha day rafetlu na dem bi nga xam ne kon la fa ministre Maymouna Dièye dem 24 heures fukki million dimbalee ko ñi nga xam ne ñoo loru nag kon ci wàllu mbënd moomee direct news ne Adama Gaye day ma nga yóbbu gars yi ca yoon de nguuru Macky Sall bi nga xam ne nee na tëj biñ ko tëjoon ci kaso beeg ak ak yelleefu doomu aadama am ci boppam ay droit ah jamono joojee ministre Malick Sall fi ne dañu koo weq tegee ko nale moo tax Adama Gaye du bàyyi nguuru Macky Sall gi de déedéet libération yi ne kaay ne wàllum impôt gi la day fisc bi gars yi dinañ wàccee leen di dinañ leen wàccee di ñëw waawut saay day lu tolloo 40 milliards nañ leen jam de yéen a kaa gi ne coowal Jérôme ba njàkki perquisition de lañ def ci ay këram ca Mbuur Dakar Times West African Energy day mbir am na fa de ah waaw parce que Moustapha Ngaye mi le ci kanamu procureur ah, ah. la ñu koy toppee nag mooy wàllum usurpation de fonction mar day taal faux et usage de faux en mu waay privé ak dénonciation waaw yéen a ne Samuel Sarr day mosuñu koo tere mu génn te gars yi bind ko ca liste ba le témoin yéen a ne dama bi nga xam ne ñun ñoo looloo am doxal eh, ñu dem ci wàllum weq jiital gi yëgle kaay gi naan man kaay ma xamal la gaynde yi ci jëmi boppam classement FIFA ci jëmi boppam ci septembre bi le gaa ñi nañu ñaari place 19 la ñu nekkoon ñëw nañ ci 21 seetal lii équipe bu mag bee ma tax di wax de yëgle gi naan man U20 nag waxal ci ñoom ñu ne ma ñoom waa Sénégal arraché nañ aw niil ca contre Gambie ga yëgle kaay gi naan man ba pare daal di qualifié pour les finales ba noppi daal di qualifié pour les demi-finales ndam fulla fayda fit laay xaar tës-tës gi moom dee leen ko wane kut sub aada fas wax na maa nga ca jàggi ruur ga yëglekaay gii di Dakaroise sport naan man wax nañ def nañ lu ne lu ne jéem nañ ko ngir rek moom mu jéem a xam ni responsable la xam mooy kan waaye moom aada daa mel ni ku dëgër bopp rek waaye waaye ndogal du wees nag waaye nag aada ci dëgg-dëgg champion nga am na lu nekk sa kanam xam ko jiitir jëwri nag Ousmane Sonko fa joxe fanweeru ponk yoo xam ne fañ ko war a jëfee ngir am ubbite école bu a kaay na ko bokk na ca fanweeru yooyu nag fexe ba xale jigéen yi képp ku muuru école bu la neex dem jàngee ne loolu moom far force moo fi am le quotidien yéen a kaay ne état bi kay bàyyeegul mbiru muur yi ci école bi jëw ju ñu dénk wàllu njàng mi sax fa war a génne ab bataaxal arrêté boo xamante ne fay sàkku ci mboolem école yi ne seen règlement intérieur ya nañ ko soppi ba méngoo ak constitution bu Sénégal te constitution bi li mu wax mooy doomu Sénégal bu ne xam nga sañ-sañ jàng école bu la neex muuru nag warta tax ñuy tere xale jàng ci école bés bi a na Sonko kay caaxaanut fa wax lu leer lañ nee na dogal bi nga xam ne moom la réewum Sénégal jël mbooleem école Sénégal moom la ñu jëfee ci école yi ñu nekk bitim réew tijj fii école dàq nañ élève bu jigéen parce que dafay muuru loolu moom jeex na intaha xalaas c'est fini l'observateur na faa leen di wax kan mooy Jim Dramé mooy boroom xam-xam bi nga xam ne président Diomaye Faye fa ko tànn ngir mu jiite direction affaires religieuses maanaam diggante nguur gi ak kilifa diine yi waa ji fa jàngee kokki fa jàngee al azhar fa jàngee tamit Égypte fa nekkoon jàngalekat fa wax nag ne man mbooleem diine yi laa fi nekkal nag amul xàjj ak seen lu jëm nag ne ba léegi maa ngi moom gisanteeguñ mosu ñoo toog sax jàkkaarloo nga nekk ca jafe-jafe ca Touba ci wàllu mbënd mi mooy état bu Sénégal yaw seetal dafa yéen a kaay fa ñoo xamal ne état bu Sénégal daal fa ñoo génnee téeméeru tonnu ceeb ak juróom fukki millions dimbalee ko ña nga xam ne seen kër yi ndox ma fa ko nangu ca Touba ñu nekk ca mbënd ma loolu baax na moom premier ministre bu Sénégal nag ne bëgg-bëggam dëgg mooy ñàng meeg ñàngale mi kon tegu ci yoonu siraatal mustaqim benn benk ñenk ba ci amee loolu tax mu jël fanweeri mesure bés bi le jour ni ma Ousmane Sonko daal fi mu jàppoon na kon daara ci réew mi ba ci sax daara yi nga jàngalekat ci salle de te juróom-benn junni ñetti téeméer ñaar fukki ñoom ñëpp ay classe yu bon lañu ñu wàññi leen fépp ci Sénégal l'école Sénégal yi kon am na toll ci ñaari téeméeri junni juróom-ñaar ci manquement ci table ban lu ëpp juróomi junneeg juróomi téeméeri école amuñu clôture ñaari juróom fukk ak benn école amuñu ndox juróom ñaari junneeg lu teg ci école amuñu courant l'école yu manqué lu ëpp ñeent junniy jàngalekat ci at wile jàpp ñeent fukk juróom-ñeent juróom-ñaar téeméeri juróom-ñetti fukk école yoo xam ne élèves yi ñoom ñëpp amuñu këyitu juddu ay waay lii tamit mbaa jàmm la l'observateur ci reddition des comptes bi ñu jëm juróomi dossier kon ubbi nañ ko boo noppi ci yëglekaay bi yi ñuy tudd ci reddition des comptes bi na leer ni ñëpp yëglekaay bi ne dignitaires yi woon ci nguur Macky Sall bi kon gars yi fii ak ay bés bi ñu dëgg ma seen tànk la lu jëm dafa mel ne ku fopp wóomam teg ko ci buli FMI noonu la def senegal jamono ji lu Sénégal yëkkati mu indil ko coowal xaalis ak bor xaalis bi mënta dem mënta dikk tàggatémbe lool FMI mel ne kuy santaas Sénégal waaw ñu xam économie sax nee nañ Sénégal bu bëggee moom boppam lool na génn ci loxol FMI Mhm. Euh, Ousmane Sonko ne nañ jël trente mesures yoo xam ne at mi ñu dëkkmal ci wàllu njàng ak njàngale lépp dina yemb Ousmane Sonko bàyyiwul waxi voile bi ndax jox na ministre bi ñu dénk wàllu njàng meeg njàngale mi ndigal ngir mu xaatim bataaxal boo xam ne école yëpp a ciy tolloondoo école étrangère école jullit école catholique ñëpp ay tolloole rek waaw nee na loolu nañ ko nañ ko matal waaw fi mu ne nii Khalifa Sall Anta Babacar Ngom Papa Djibril Fall Maître El Hadj Diouf Bougane Gueye Dany Abdou euh, Thierno Bocoum ak ñoom seen dajale nañ ci benn kuréel lu war a tolloog cent dix euh, politi euh, parti politique ak mouvement politique tuddee ko atel ngir wattu élection yi mu mën a jaar ci yoon ñoom sax nee nañ ñooy opposition réew mi te le 27 bu Ousmane ko nekkee place euh, Grand Théâtre ñoom danañ dem place de l'Obélisque manifester waaw waaw téeméer ak fukk ci parti politique ak i mouvement lancé nañ ab bouclier boo xam ne leeraayuk élection yi moo ko tax a jug lépp nag ñaabar ñaabari jëm ci yooyu la élection législative le mandat naan kon téeméer ak fukk ak ñett ci ay personnalité politique fàqee koo fii ci réewum Sénégal ñoo séq boobule kuréel yéeni kaayub dee média bi naan kon ma ñëw rek la tax a jug seen kuréel gii atel la tudd mooy daar daar mani la ñu waxtaan ñëpp ñuy acteur ci wàllu politique ñi nga xam ne ñoo gàlloo tëggum élection yi lépp jaar ci yoon ñu xool yéerte gis tegu na ci raay bi ay leader fas yéene ñaabar ñaabari ba ci yoon saisir ay organe judiciaire dem seeti ay kilifa diine kilifa aada yi nga xam ne ñu ngi ci réewum Sénégal waaye tam ay représentation diplomatique fii ci réew mi laas naan kon en tout cas atel moom nee ñu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wii dees na def ak manifestation boo xam ne leeraayu élection yi moo ko tax a jóg bés bi la jour naan kon atel daal ma nga samp ngànnaayam armée wu takku ba dëgër di xaar ci lépp loo xam ne mën a tukkee ci la élection yoon bu njëkk dëpp depuis 93 ñu beddi ay parti politique bokk ci opposition bi ci ne élection di doxee ci réew mi moom président de la république jàpp ne moo war a doxal moom képp violation am ci protocole additionnel bu CEDEAO ministre de l'intérieur naan leen mbaa saaga du yàkkamti xeex ndax nag woote na ab ndaje samedi gii l'info yéene kaay naan kon en tout cas opposition bi moom dañuy upp balaa ñuy lakkale woote nañu mani la ngir transparence am ci élection yi ndax lépp luñ bëgg def ci càccuk élection yi ateel loolu la ñu bëgg defit ngir du fi am nag bàyyi majorité kese ñu tëgg élection def la leen ca neex daanaka deltu ginnaaw ci wàllu démocratie la te loolu duñu ko nangu ndax nag ak lu mën am ci réewum Sénégal saa bu élection ministre de l'intérieur daan na woo acteurs yëpp ñu booloo waxtaan ba gis nag ak déggoo ci seen biir doora nag ñaabar ñaabari jëm ca ngir élection yu jaar yoon. ci diwaanu Thiès Kayreen itam ba tey foofee la daal di des am monsieur ba Kumba dal di fay am démb ci alxamis bi foofee technicien ya doon liggéeyee foofee ca gare routière bu Thiès di fa jàngee métier ku ni yenn saay xale yi dañ fay taxaw ngir am leen yóbbu ñu ñibbi ci ay a sori ci biir Thiès kaay moom xale bu góor bi nag doon lang ret ab camion far nag jaaree fa daal di ñàkk bakkanam camion beewal booba booba daal di tasaaroo mu nekk nag mbir mu nga xamante ni naqarlu na loolu ay moroomu mécanicien yi nga xamante ni daal jàpp nañu que seen liggéey na waaye tam sax duñu jot li nga ni moom moo di ay alamaan maanaam ay la nga ni daal moom moo di ay mandat bu ñu wàccee ngir mën a dem ñibbi yenn saay sax yëkkëri ñaar dërëm jox ko seen ay wajur daf leen di tiis lool ca beneen ga itam ña nga xamante ni ni loolee dugg leen ndax yenn saay sax ay xale dañuy lang ci ay bi askan wa dañuy dànkaafu rek ña nga ñoom ñooy kilifa yi ngir ñu gën leen mën a dimbali foofee ca diwaanu rond point Mbour 1 eh, ci ay doo daan waaye tam sax ay policiers yi nga xamante ni dañ fay taxaw ngir mën a seetlu bu baax a baax dem beeg dikki ba nga xamante dafay am foofu ñu bëri ci askan nag daal di jooy ret la nga xamante ni moom moo di daal ñàkkub lamp ak ñàkkub kaaraange bi nga day tax yenn ci xale mécaniciens yi bu ñu wàccee foofee ret la ñuy taxaw a am lu leen yóbbu lu ci mënti am moom xale bu góor bu bay toll ci ay fukki at ak juróom-ñeent daal mu bëggee woon lang ci ab camion di ko jàll ay mbokkam a baax rek comme niñ koy faral di waxee doole jën ndox la waaye ñun suñu doole yéen la waaye ci gens ma gens rek nga faat ci nit nag yéen lii duñu ci wax nag ah ma gens gens waaw ah, xam ngeen waaye yéen gens ngeen a ko gën a xam nag loolu nuy fóon ma fóon pour suulee sama bopp bi ni tangalang nga lànk mu las la seeg yow nga lànk mu las la seeg yow mun la ca pàq faat la ca ci man réew la ñu ne ah Sénégal la wala làmbal ma ki nga dendal ne ko xoos xoos ni ko faal damee lay laajte ci man réew la ne bu ne la Sénégal la nu jóg nag nag jóg jot na ma ne ko jóg jot na xoolaat suñu bopp maa la wax lii waaye fa Touba euh, gis naa liñ leen tabaxal macha allah loolu moom rafetlu naa ko Touba ca kanam merci beaucoup chapeau néeg ya ña ca fanaan laay asim sant nañu yàlla waaye ñun ñi ko teggi gët itam waran leen ko mën a defal kenn ku ci nekk ñun war a jël sa mbokk defal ko ko yéen ngeen taxaw def loolu ñu ngi leen ci sant di leen ci jaajëfal di leen ci kontaan di leen ci wax merci beaucoup thank you ah wax yow dama leen di sant nga naan bi nekki naa kër naa kakata naa nee sa Mate Ndiaye jërëjëf ok sant nañ leen de ku ca jàpp ku ca liggéey jàpp ca moo xam ci wàllum euh, visibilité fexe ba nit ña gis la fa ne ngir mën a jóg jàpp ci ñu ngi leen di jaajëfal ña yëkkat seen alal ñu ngi leen di jaajëfal ña dem waxtaan ak ñoom ngi dalal seeni xel sax kese rek dong fa Tuuba ñu ngi leen di jaajëfal sëñ Muntaxa Mbàkke Albachir jërëjëf merci beaucoup yàgg fi lool te wér mbokk yi xarit yeeg dëkkandoo yi ñu jox leen dig daje kon bu suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew askanu sunu gaal ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen seen wàcc waaye di leen jox dig daje jërë ngeen jëf. salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien. dikkati naa. daleen jàmm. lu yëgle kaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yër. Sénégal bonjour. cher gente de Enquête 221 dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëgle kaay yi. Mesdames et messieurs, bonjour. ñuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen xëf de presse teel sa kaas kofe nga guux bala ngay naan bay simbulee xumoox la li xew ci réew maskanu sunu gaal gi jërë ngeen jëw alaan bikum mais ngay seet loolu rek mbaa yéen a nga ca seen te te te ay nag yàlla baax na ñu yendoog jàmm bu subaak jàmm incha allah yendoog jàmm C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Que mais la ci dong mais la ci dong de ci Allah fu ñu jëbati bon que Dieu préserve le Sénégal. ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yéen doog jàmm. <laughs> tey lii moom doy na waar di waaye lu mu doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que jomaay sonko te sonkoy jomaay boo paree ma ne la alaaji si laatit bu baaxee rek a te ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah